ne maîtrise pas dans des rues de quartiers populaires yoo xam ne seen oto xaju fa te dàq seeni i ñooñ di leen dóor balu fetal du loolu lañ leen di jëlee les réquisitions des commandants de zone mais c'est pas ça la la vocation de l'armée ce n'est pas de traquer du civil lañuy xaar ci soldat nekkul di topp civil di dóor ay balu fetal mooy défendre civil yi mooy ñoom ñu ñàkk seen ay nelaw pour que civil yi mën a nelaw ba yandoor mooy nekk ci frontière yu fexe ba Sénégal aar ko kaaraange goo xam dafa mucc ayib ñoom bu ñu xëy di dem kenn ci ñoom mënul waat ni dana dellu si këram pourtant ñun ñoo tax ñuy dem boo leen gisee biir région yi nekk dans le sud ñu gas ay pax def ay branche ci kaw dëkk ci suuf di toggal seen bopp di taaba taaba def fa un an ou un an et plus waaw ñu mën leen jàmmal tuuti. nekkuñu guñu nekk guñu état de siège ba ñu war leen génne ci mbedd yi ak seen ay chars de combat maanaam signaux yi nga xam ne ñu ngi koy joxee dafa war nekk des signaux de paix et de sérénité waaye bu fekkee foo dem rek gis euh, takk der taxaw euh, dégage non c'est pas ça un peu de correction pour nos populations sans lesquelles nous n'existerions pas kon yàlla na yàlla def ci ñun woy yàlla na yàlla sàmm suñu ndaw réew yal na yàlla delloo si leen ñu mën a toog ci kër yi bàyyi seen i mag ña nga xam ne ñoom la ñu jiital ci kanam ñu waxtaane ko ak ñeneen ñooñ ko seqal ba jàmm ju yàmbalan dellu si biir Sénégal investisseurs yi fi ñëwoon bare nañu te seen alal